ci biir toogaay bi dañ cee gis loo xamante ne nii lu ñu teewaayu bës te loolu yëpp incha dinañ ko waxtaanee ci biir dinañ ko faram-fàccee ci biir waxtaan wi mbokk yi tey li waral ñu teew fii dafay lu rëy dafay information boo am solo boo xamante ne nii làmb ñëpp dañ ci kontaan senegal dañ ciy kontaan parce que c'est une pour c'est première ci saison bi lii waaj a am ma ko wax waaye information la boo xamante ni nii bu am solo. concerné combat Modou ak Ama Baldé mbokk yi tey li waral ñu teew fii xam ngeen ni jàkkaarloo waroon na am le 22 de ñu weesoo ci diggante Modou ak Ama waaye am na dogal yoo xamante ni nii jug na kilifa yu dogal ko mu waral jàkkaarloo boobu amul am na beneen bis bu mag boo xamante ni nii Luc Nicolaï en ko jàpp na ko ngi def ci jàkkaarloo Ama Baldé ak ki nga xamante ni nii mooy Modou muy bis boo xamante ne nii yaakaar naa ne làmb dootu ko fàtte ndax képp kuy dund làmb yàq yàqamti nga jàkkaarloo Ama ak Modou Lo war a jàkkaarloo boobu di am mbokk yi dafa am leneen lu rëy mbokk yi tey bis bi ay surprise rek la bëgguma wax lépp waaye dinaa leen ci junju dafa am ku mag ku nekk ci réew mi doon partenaire boo xamante ne nii dafa ñëw ànd ak Luc Nicolaï Enco fas yéene liggéey ak moom ci li jëm ci at mi wala liggéey ak moom ci lu jëm ci combat Modou ak Ama Baldé ñu partenaire bu mag boo xamante ni dinañ ko dévoiler ci bisu jàkkaarloo Modou ak Ama te jàkkaarloo boobu mi ngi am na 5 février la war a jàkkaarloo ñoom ñaar ci EDK bu yebaa EDK bi nekk ci kaw autoroute à péage bi li nga xamante ne nii war na cee amit loolu yëpp mbokk yi mi ngi ci biir waxtaan wi li Luc Nicolaï dina ko jël jox ko ñi nga xamante ni ñooy askanu Sénégal waaye mbokk yi bis boobu yaakaar naa ni bis la boo xamante ni ni ku ci nekk li la ci war ci ñaari mbër yi dinañ la ko wax fii ku ci nekk li nga war ñëwee ci ñaari mbër yi dinañ la ko wax fii waaye presse sénégalaise Luc Nicolaï en ko amuñu fayam ñun presse bi déedéet amuñu fayam Luc Nicolaï li tax amuñu fayam Luc Nicolaï à chaque fois bu organisé bàyyi na xel presse bi ba tax na bis boobu nga xamante ni ni mooy bisu la cinq Luc Nicolaï daf ci jël dispositif yu am solo pour la presse sénégalaise yëpp mettre na à notre disposition des cars mettre na à notre disposition cinq bus yoo xamante ni nii dinañu dinañu ñëw jël suñu yóbbu ñu indiwaat loolu nag dama bëgg ñun ñëpp ñu tàcc ko caméraman yi bàyyi leen bi tàcc leen bi voilà noonu la defoon ñeneen te du du du gulet ci moom mbokk yi Ibrahima Faye Beuz mi ngi fi toog lu waral mu toog fii parce que Luc Nicolaï en ko liggéeyul woon ak Beuz ci saison bi dañ ko gisoon ak beneen structure te ñu làmb njaboot lañu ñun làmb famille lañu ku dugg ci làmb ñëwuloo ci làmb ngir yokku làmb ñun waa làmb ñooy àndaat bàyyi la nga du ñu ànd ak yow parce que làmb njaboot la goo xamante ni nii ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk bàyyi te Ibrahima Faye Beuz moom ak Luc Nicolaï ñoo njëkk a boole seen ay doole offrir sénégalais yi lii di bu ñu boolee seen ay doole offrir ñu lii di pay mi ngi nekkoon ci combat Balla Gaye ak Gris Bordeaux combat bi mi ngi amoon fi nga xamante ne mooy stade de l'Amitié stade buy compter soixante mille places keroog bu ñu juumul y avait plus de cinquante cinq mille personnes yu ñëw seetaan ci combat boobu te pay per woon moo moo gën a tax. mu pousse nit ñi ñu ñëw seetaan si combat boobu kon ko Nicolaï ak Ibrahima fay Beuz amuñu seen fay ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax tey nag li waral seen lonkoo waat wala li waral seen àndaat loolu yëpp dañ koy waxtaanee mu waral muy point de presse bi nga xamante ne Luc Nicolaï da koo wootee ñu gis ci wetam ki nga xamante ne mooy Wili la futur ki nga xamante ne nii yaakaar naa ne bu toogee tey jii ci weti wetu way juróom loolu wareef la Ibrahima Faye bës mi ngi ci wet gi toog loolu yëpp dañ koy waxtaanee Luc Nicolaï la ñuy bàyyi mu tijji waxtaan wi mu nuyoo nuyoo askanu Sénégal nuyoo presse sénégalaise waaye tamit ñu tàmbali li nga xamante ne ni mooy liggéey bi Luc Nicolaï bismillah. jërëjëf Modou Mbaye jërëjëf jërëjëf Modou Mbaye asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu di nuyu assistance bi yëpp di nuyu Sénégal yëpp. mënuma nag commencé wax ci wax ji te santuma sama sëriñ sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Fallelu waaw di sant njabootu sëñ Touba bi yëpp di sant waa Tiwaawan Ndiassane communauté musulmane bi yëpp ak catholique bi di sant vraiment fépp fu nit waay nekk daal maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay waaw Modou je pense que li nga wax euh, am na solo trop déjà man fi may commencé mooy wax nga ne Wily comme ni nga wax toogaayam fii am na fi solo trop. Mm-hmm. parce que booy seet man léegi comme ni ma leen waxoon ci yoon bële consultant laa rek ci làmb. Mm-hmm. booy seet làmb ji moom moo ko tëgg euh, ak structure am bu tudd Nicolay business. donc euh, dama leen di gunge rek ndax làmb ji mënatuma ci continuer ndax am naa yeneen activité yoo xamante ne euh, maa ngi nag toujours ci làmb mais damay toog seen wet di leen gunge. chaque fois buy manifestation di am ma teew joxe suma expertise joxe yépp euh, loolu nag benn la ñaareel ba mooy euh, ci mbirum euh, li nga wax léegi dafa am benn mbébét bu ñu amoon ci waxtaan keroog ndax combat Ama Baldé ak Modou Lô mm-hmm. day combat boo xamante ne ñun suñu sago mooy askan bi yëpp seetaan ko mm-hmm. te du am benn jafe-jafe mm-hmm. ndax euh, daf bare na ñoo xamante ne nekkuñu euh, fi nga xamante ne mën nañu am jumtuwaay yu xarale yoo xamante ne dina leen permettre ñu dugg seetaan làmb ji ñu ci waxtaan ak partenaire boobu itam moom itam mu jël les moyens qu'il faut ne ma man sénégalais euh, def naa sumay preuve fii biir Sénégal donc dinaa ñëw gunge la combat boobu du nekk pay per view fii Sénégal combat bi direct la Sénégal waaw ci télévision yëpp direct la voilà muy ay ITV ay 2S télévision yëpp daal dinañu waaw liggéey ak ñoom seen TV ñëpp mun cee jot wal fajiri ak ñëpp waaw dàquñu daal benn télé dinañu liggéey ndax askan bi yëpp liggéey ci télévision yi gis ci seen bopp askan bi gis ci seen bopp mhm. loolu premier point la mhm. deuxième point damay ñëw ci presse bi ndax am na wax bu ñu waxoon fii keroog ma ne dama bëgg ñu ànd ñu liggéey d'ailleurs man loolu sax moo gën a ma soxal ba ma ñëw toog fii ak yéen tey parce que dama bëgg a bëgguma combat bi ñu dem ba ci biir ñu naan jox ma accréditation jox ma lii jox déedéet bëgguma loolu dama bëgg ñu waxtaan léegi ma jox leen dinaa leen jox adresse mail boo xamante ne bu ma paree fii da ngeen koy jël bu ko defee ngeen rapproché wu foofu ñu wax leen ne combat bi nii lañ ciy liggéeyee ak nii ba nga xamante ne jour ba ku ci ne di nga def sa liggéey nu mu waree euh, doo am benn xaar ma yàlla ak structure Luc Nicolaï and Co parce que yéen ni ma leen soxlaa noonu ngeen ma soxlaa. Mhm. donc mbir mi soxlante la. c'est pas rek non dama yor événement bu mag non non non bi dama leen di dàq déedéet du ma def loolu. waaw liggéey. incha allah sérieusement toog ku ci ne xam fa nga war a yem ak la la war. loolu ngeen rapproché woo ci Modou Ama 13 mars arobase gmail point kooku déjà pour le cinq bi ñëpp nañu bindu foofu comme ça ku ci ne lañ la war a jox parce que dinañ la jox euh, mbandarga boo xam ne mooy wane ne boo ñëwee gendarmerie mun la bàyyi nga dugg. Mm-hmm. donc loolu foofu lañ la koy joxee. Euh, dinañu bare mun nañ ko distribuer sax mun nañ leen fekk fu ngeen ne jox leen ko pour éviter leen déplacement. Mm-hmm. voilà loolu je tenais à vous le voilà ñetteel ba mooy euh, face à face bi war a am le 5 mars. Euh, le 5 février pardon fële ci EDK Yeba ci autoroute péage bi mhm. disposition yi war yëpp jël nañ ko ci événement boobu ci wàllu sécurité ci wàllu organisation ci wàll yëpp bàyyiwuñu dara ndax boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey donc tey mbër bu ci ne juróomi nit ngay àndal ak yow muy six personnes mbër bu ci ne aussi ñun ñoo lay jëlee fi nga ne ànd ak sécurité bu doy ñu yóbbu la ba ci fi nga war a defee sa signature contrat presse bi comme ni ko Modou Mbaye waxee loolu jarul ma ciy dellu siwaat wax na ko ba pare donc matuwaay yi war yépp pour face à bi jaar yoon mu doon fet te Modou bi ma waxtaanee ak moom Ama Balde bi ma waxtaanee ak moom ak seen staff tey ci suba lañu mujj def réunion ñoom seen bopp sax nee nañu bu leen neexee Ama dem jëli Modou ñu ànd ñëw parce que il sont conscients que les enjeux sont très forts dans ce combat mhm. et làmb soxlawul fu mu toll nii loo xamante ne daf koy yàq déjà liñ ñuy fustiger doy na sëkk donc du ñu may nit ñi fañ ñu waxee wax joo xamante ne dañ ñuy jàmm donc daal loolu je tenais à donner cette information du ma guddal nag parce que comme ni le cinq bi la ñu le 5 février la ñu bëgg a wax dëgg yàlla bu ci yàlla àndee ñu teg plan d'action boo xamante ne foofaa dinañ ko jox ay plaquettes yoo xam ne journaliste bu ne dinañ la ko jox wan la ne manifestation tel tel tel fekk na yéen rapproché ngeen fii xam ngeen lu ñu war a liggéeyee xam ngeen fu ñu war a jaar comme ça liggéey bi jaar ci yoon euh, ñu liggéey mais dans la main def événement bu mag ku ci ne gis ci sa bopp la nga war a war a am nga am ko ci waaw wasalaam macha allah muy waaye junj nañ tamit ci bi sa diggante ak structure bi nga doon liggéeyal xam nga tey bu fekkente ne yow yaa ciy wax wala wili moo ciy wax lan lañ mën a xam ci sa diggante xam nga waaye tamit retour kii ñu gisaat sa diggante ak Beuz muy diggante bu neex Sénégal mu diggante boo xam Sénégal yëpp yàqamti woon nañu Beuz ñëwul liggéey ci combat Ama Baldé ak Modou Lo ndax làmb ji miin nañu ko tey lan nga ñu mën a indil ay leeral ci loolu. waaw li ma mën a wax mooy. Euh, euh, affaire pay per view ci bitim réew. Mm-hmm. loolu damay bàyyi Willy comme moom moo moom combat muy Nicolas business donc moom laay bàyyi mu ñëw ci. Mm-hmm. parce que moom je pense que bëgguma ñuy wax ci ay affaires yoo xamante ne intéressé wuñu mm-hmm. li ñu intéressé mooy lis suñu kanam. donc moom moom moom combat moo tànn structure bi nga xamante ne xëy na moo ko doy. donc dama koy bàyyi moom mu wax lan moo tax le choix de Buzz pour mu defal ko pay view ci bitim réew. Mm-hmm. je pense que jaadu na aussi euh, moom itam mu sànni ci ay kàddoom. Mm-hmm. donc daal loolu la di wax rek ne ñun moom comme li may wax suñu kanam la ñuy xool. donc je pense que am na yoo xamante ne jarul ñu fi nekk di di ci ñëwaat daal du dëgg ah. incha loolu moo gën a rafet ah. ndax mm-hmm. ñun ñëpp ay sénégalais lañu. Mm-hmm. nañu bokk ndey bokk baay. macha allah jërëjëf. jërëjëf. gars yi ñu. le choix de man ma puus. wala ma puus waaw ok. yaakaar nañ ne dinañu indil lu ñuy lu ñuy xaar yëpp incha allah. macha allah mu nekk loo xamante ne ni lu am solo la bës balaa bës di waxaat yow ginnaaw ba sa kilifa gi tamit nee na structure sa structure moo ko tëgg combat bi tey bisu le 5 bisu le 13 mars mu ñaari date yoo xamante ne yaakaar naa ne sénégalais yi yàqamte nañ ko te yàqamte nañ fa yegg tey Willy Nicolaï lan la ñuy wax ci ñaari date yooyu ak lan la ci structure bi di naan. waaw Modou yaakaar naa ne. ci ñaari date yooyu li ma ciy wax lu ci bëri parce que tey jii booy xool am na lu ñu wax léegi mooy ñetti point <coughs> surtout premier point bi moom laay appuyer premier point bi mooy dañoo jël combat bi def ko direct mooy loo xamante ni gën na am si làmb mm-hmm. donc loolu booy xool li tax ñu def ko mooy pour delloo làmb fi mu nekkoon mu neexaat comme ni mu neexee woon nit ñi di ko dundaat comme ni ko doon dundee mm-hmm. donc loolu <coughs> balaa may def dara dama siy woote ñi nga xamante ni ñoo fi toog muy journaliste yi ahlu làmb ñëpp ñu fexe aussi def communication bu baax bu rafet incha allah pour defaraat làmb xam nga lépp mu jaar yoon incha allah. Mhm. parce que tey jii nii ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo seeg làmb fii tey Sénégal amul beneen dëkku Afrique booy génn mu am làmb. Mhm. Sénégal rek moo fi am làmb. Mhm. donc nañ ko jël valoriser ko commencé ko ci ñun ñi nga xam ne ñoom ñun ñooy acteurs yi. après ñu continuer supporters yi ñëw topp ñu si ñeneen ñi ñëw ñëpp ñëw. mu def affaire bu rafet delloo làmb fu mu nekkoon dundee ko ambiance comme ni ñu ko daan dundee comprendre indi esprit esprit positif bu baax a ah, loolu la ñuy loolu mooy suñu attente donc yaakaar naa wax bi du jar muy bëri allah dinañ mën waxaat seen euh, ay seen ko am question waaw jërëjëf salaamaaleykum euh, di assistant bi fi nekk yëpp euh, baax Modou Mbaye eh, yaakaar naa sama question maa ngi nuyu journaliste yi fi teew yëpp caméra man reporter ñëpp maa ngi leen di bëgg bu baax di leen jox seen yéeguwaay fi ma ñëw Modou Mbaye mooy lépp da ne télé yëpp ñoo koy def direct bu ma juumlee ndax eh, benn télé moo koy def direct jox ñëpp signal wala kenn ku ne da ngay ñëw def sa plateau. wane sa bopp moo xam ITV la jox ko 2STV moo tax deux moo xam 2 la jox ko ITV wala bu boobaa ITV day ñëw installé plateau 2S plateau installé ak ñeneen ak ñeneen wala signal bi dañu koy jox ñëpp télé yëpp def ko traité loolu laa bëgg na xam ba dèjà ñu ngi ànd rek ITV ak 2S bu mu jublu Modou Mbaye. ITV ok. ñoo en direct sur ITV. waaw ok donc euh, xam nga tey bu dee production. production bi moom li mën a def mooy jox ko benn télévision waaw loolu nag télévision boobu mooy jëlaat signal neutre jox ko yeneen télévision yi euh, ñaareel ba plateau yi moom je pense que li gën a baax mooy ku nekk am sa plateau wane na nga mënee jour boobu waaw loolu moom noonu lañ ko nar a liggéey incha allah du ma jël benn plateau rek teg ko déedéet ku ne day am sa plateau ci biir stade bi télé bu nekk. Hmm. Uh, e e waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu asalaamaaleykum di nuyu képp ku fi teew sa tur ak sa salaam di ziar yi di Balla di ziar Bez waaw li may tàmbalee rek mooy combat Modou Lo Ama Baldé uh, damay laaj ndax boobu léegi déglu nga wax si muy combat yu ndaw yi ñaata combat nga si tëdd ak yan combat nga préparé si combat yu ndaw yi ak yan mbër nga tëdd te loolu c'est très important ñu nga xam ñan nga boole. ay am problème ñu wala yan booy nga boole. benn mooy comme ni ko waxee le cinq incha allah rabbi muy signature bi euh, de na muy la ñuy déparé un jour waaw kii. Euh, maa ngi lay gërëm di la sant. petit combat yi moom du ma ci mën a wax parce que Mbaye Diagne moo koy gérer moo taxawal combat yëpp yu ndaw yi moom moo ko taxawal. am na ci nag benn spécial bu xaw a mag bu ñu doon waxtaan ba démb mu ngi ciy waxtaan boo ne ñaari mbër mbër yu mag lañu am na ci mbër benn bi sax moo daan par kaw yàggul dara nii ci wayar yi ñu jógee donc Mbaye mu ci doon waxtaan ak ñoom quoi. Euh, ñaareel ba pour presse bi moom laa doon wax Modou Mbaye sànq nee naa ko presse bi ñoom nañu tànn. fi nga xamante ne la soxla kaar yi ñu yóbbul leen ko foofu ndax xam nga man du ma du mun a xam yéen fan moo leen gën a arrangé hmm. yéen ay xool da ngeen mën naan ñaari kaar tegal leen ma ko banlieue ñaari kaar tegal leen ma ko Dakar benn kaar bi ngeen yóbbul yéen loo koy waxtaan seen biir bu ngeen ko yónnee ci adresse wala ngeen woo ma directement ñu waxtaan ci xool fu mu gën a rafetee fu mu leen gën a arrangé ñu yóbbul leen kaar yi foofu quoi kaar bu soobee yàlla aussi dinañ leen xaar ba ngeen pare ku ci ne ñu jéem la desservir fa nga gën a jege ñu xool ni ñu koy defee pour ñëpp mun a mun a am bañ am benn difficulté quoi. jërëjëf maa ngi ngi lay nuyu bi nga jox solo maam ñaari question rek benn bi mooy que ni. dégg nañ ni Modou Lo dafa voyage te diggante feeg le cinq xaw na jàpp xaw na jege est-ce que am nga njort ni pour ñëw assister face mooy que ni yaa ngi doon juuju ne loolu yaa ngi mu leen ci waaw euh, moom pense que yàgg naa liggéey moom muy dem tout tukki may def face à face muy ñëw Modou je pense que fii may wax ak yow dagg na biir. bala face à face dina ko fi fekk mu ñëw def face à le cinq moom incha allah bu dee jàmm rek ngi am kenn mënul tere face à face Modou Lo ak Ama am loolu moom fii laa ko waxee ci kanamu caméra yi incha allah di dalalaale xelu buur géwél da ko dalalal sa xel. sama question moom je pense que dina xaw a xat pour ñu dem foofu quoi honnêtement waaw waaw day xaw a xat. waaw peut-être après ñu def beneen man sama question mooy comme ñun sénégalais yi nga xamante ne nii ñooy supporter Modou Lo ñii ñooy supporter Ama Baldé ci bisu signature est-ce que am nañu droit ñëw ci signature bi seetaan si foofu ndax public dafa war a ñëw wala waru faa ñëw ndax war nañ faa ñëw ñun les loolu moom on est intransigeant wax nañ ko ak sécurité bi. même mbay moo dàq loolu. moo ah mbay moo dàquloo Modou Mbaye bul wax ah, est-ce que loo daaxul bay. non non bay bay bay daax moom bay daax ko yàq rek bay daax <laughs> waaw non Modou euh, loolu moom dañ ci intransigeant loolu moom amul sax demal maa ngi ñëw. amul benn benn laa wax supporter à part cinq yi ànd ak Ama ak cinq yi ànd ak Modou yu nar a dugg foofu ndax ci péage bi foofu dafa dafa yomb lijjanti. déjà ca péage ba lañ lay arrêté doo jaar. donc doo egg si sax si station te foofu gis nga dara waru sécurité bi dina doy sëkk sëkk sëkk te yéen di ngeen ci teg seen bët incha allah benn supporter woowuñu la da nga toog seetaan télé parce que télé yi dañ koy def en direct télé yi war a nekk partenaire ci événement bi ñoom ñëpp direct lañ koy def jour woowu ak site yi site yi dañ koy def direct aussi ku ci ne na nga seetaan sa téléphone wala nga seetaan euh, télévision du mbay daal loolu amul sax xaar ma kooku moom dañ ci suul sax foo benn doomu aadama bokkul ci ñi nga xamante ne ñooñu la ñu woo du dugg fluide boobu. république la rek kon mun sénégalais yi ñun sénégalais yi ba nañ jàpp ni combat Ama Modou Lô lépp lu ci préparation dinañ ñu ko jox en direct à la télévision. incha allah yow loolu xam nga ne déjà 2 moo nar a def euh, production bi. incha ak euh, ITV ak Walfadjri pour l'instant ak euh, Sen TV. Mhm. donc ñoom ñëpp dinañ fa ne def production ñëw. may euh, ko askan bi site yi aussi ñoom ñëpp dinañ ko def en direct ñëpp gis ko seetaan ko mu doon fête jour boobu. buzz face à face bi ban heure nag euh, xam naa ne dañ ko xalaat def ko prime time ay peut-être vingt et une heures yooyu mais loolu dinañ ko leeral presse bi incha allah dinañ ko leer ñu ngi ciy liggéey nii bëgguma wax loo xamante ne aussi télévision yi waxtaanuñ ci ba déggoo ci ndax bañ bouleverser seen ay programme aussi ko loolu moo ci nekk waaw. signature bu 23 ans dina baax ah. bi ngay def sa premier nationale dafa tudd ci combat bu wax nga toll ci démarches yooyu noonu ndax ñu bëgg laa def koo xam mu jógee fi fàtte ko wala yaa ñu jox la sa Léopold. la ma waxoon rek laay waxaat la ni euh, combat bi moom. ñii ñëpp ñu fi toog wóor na leen ne xajul arène nationale waaw loolu moom man lu ma leer la te ba fii may waxanteeg yéen a ah, ñun de amuñu beneen pexe ndax ñun état du wax ñu ciy teg baat mais bu doon suñu sago euh, ñu yóbbu ko Léopold Léopold nag condition yi fa mun a bëree laa xamul ndax am na fa wala amu fa ndax yónnee woon naa fa Mbaye Diagne waaw pareegul demoon na fa mu ne ma condition yi fa nekk wax dëgg yàlla ñu fa bëree donc à moins que autorité yi jël ay matuwaay xool nu ñu koy arrangé ba ñu mun a bëre foofu mais eh vraiment Lamine euh, damay bàyyi du Mbaye sax mu sànni ci ñaari kàddu moom itam pour wax moom parce que waxtaan nañ ci ay yooni yoon ci affaire boobu moom mun na cee wax moom itam Modou. waaw loolu dafay loo xamante nii père loolu Sénégal ñoo demandé loolu du demande Luc Nicolaï du demande Modou du demande Ama Baldé dafay demande boo xamante ni Sénégal yëpp ñoo ko def demande nationale parce que déjà combat bi ma jël exemple léegi rek Gris Bordeaux Balla Gaye combat bu toll noonu la mais bee daf ko romb parce que ñaari mbër yi seen tolluwaay dafa doy waar Modou Lo ni mu toll moom rek xaj na arène nationale Ama Baldé ni mu toll moom rek xaj na arène national kon bu ñu leen bëggee jël ñoom ñaar ñu boole leen biir arène nationale dafay doon loo xamante ne en matière de sécurité dafay metti dafay amateurs yi yi nga xamante ni ni namoon nañu làmb ñëpp dañuy ñëwaat ci bis boobu te dafa am loo xamante ni dafa war a am ci bis boobu dafa am ñu ñaari mbër yi war a ñëwee loo kenn xamagu ko te Luc Nicolaï mi ngi ciy liggéey ak ñoom ñëwin bu musul am ci làmb lu musul am ci làmb bëgg a def ci bisu ci bis boobu. mu bëgg mu doon feet kon nag dañuy ñaan le président de la république parce que moom mi ngi déglu Sénégalais yi j'espère ñu ngi ñaan le ministre de l'intérieur mu jàppale ñu ci lu wàllu ci wàllu sécurité ci combat Ama Modou Lo à ce ñu bëree ko stade de l'amitié loolu la ñuy ñaan stade de l'amitié mooy place bi nga xamante ni nii fa la ñu bëgg a bëree combat boobu parce que sénégalais yi bëgg ñëw seetaan ci combat bi bari nañu. te foofu moo àntan combat bi. Beuz ci waxtaan wi la bokk ndax moom lañ doon xaar ngir tàmbali jokkoom ak Luc Nicolaï lan moo ko waral namoon nañ la sénégalais namoon nañu pay-per-view Beuz ak Luc tey jii nag lan nga wax ci bis boobu Willy jox ko micro waaw jege si. baax na ok waaye ma puus nañ waaw bisimilah jërëjëf Modou Mbaye maa ngi assistance bi yëpp euh, du nuyu mbokki téléspectateur yi ñu seetaan bu baax a baax. donc effectivement comme ni nga ko waaw bisimilah. comme ni nga ko précisé. baaxul benn téyel ñaari. ah comme ni nga ko préciser rek je pense que Luc euh, ñu nuyu bu baax moom la ñuy njëkk àndal liggéey ci Balla Gaye 2 ak nekkoon une très très grande réussite waaye yemuñ ci ndax liggéey nañu yeneen événement lu ci mel ni Gris 2 Reug Reug ñu defoon ci liggéey bu am solo boobu léegi nag yaakaar naa 2017 ak léegi yàgg na 2017 ak léegi boo ko xaymaa ñu ngi toll ci suñu cinquième année bi nga xamante ne ñu ngi def pay per view def ci itam 19 événements donc yaakaar naa ni capitaliser nañu expérience bu baree bëree bëri te pay bi bu muy ñëw ñu bëri damay dégg ñuy wax mais pay per view bu muy ñëw dama fekk làmb ci crise avant tout nous sommes des amateurs ku ne xam nañu ñun làmb la ñu bëgg làmb la ñuy dund du xaalis moo ñu dugal ci làmb mais bëgg làmb ak bëgg sauver làmb moo ñu ci làmb donc sponsor yu bëri newatuñ fi woon promoteurs yi di tëgg di am ay jafe-jafe donc pay per dafa dugg si ci làmb période bi nga xamante ne période de crise lañ nekkoon ba léegi yaakaar naa ne mun neen sant yàlla combat yaa ngi commencé di amaat promoteurs yi même bu ñu amulee ay sponsor yaakaar naa ne tey ñu ngi am ay moyens yu ñu mënee tëggee làmb ji mais yaakaar naa ni lutte mi yàgg nañu waxtaan depuis mu tëgg combat Modou Lo Ama Baldé pour la possibilité de le faire en direct moom yéenam du sax def ko au Sénégal kese mais def ko partout dans le monde def ko en direct yaakaar naa loolu moo nekkoon yéene mais tey buñ ci waxtaan waxtaanee yaakaar naa ni tey possibilité yi moom mooy am na sponsor bu mag boo xamante ni ñëw na pour offrir événement bi fii Sénégalais yi moom mooy jënd droit d'image yi pour le Sénégal. parce que il faut dafa dafa baax ñu leeral loolu c'est pas que dañ ko euh, offrir Sénégalais yi fii yu nekk fii au niveau local ba pare xañ ko Sénégalais yi nekk au niveau de la diaspora y a pas deux types de Sénégalais ñun ñëpp benn lañu. donc buñ ko nekkee dañ ko joxe fii en direct gratuitement diaspora ñu ne pay-per-view la am na lu ko waral parce que sponsor bi bu ñëwee. day xayma en terme de droit d'image wala en terme de droit yi nga xamante ne moom la combat bi am mu ne moom Sénégal territoire bi lay jënd léegi bu ñu amee beneen sponsor boo xamante ni mun na jënd au niveau international boobaa def ko direct moo ñuy gënal man boobu wax dëgg yàlla def pay per bi pour am ci xaalis c'est pas suñu suñu option première yaakaar naa ni satisfaction de sénégalais moom mooy première option bi comme ni ñu ko waxee nit ñi seetaan ko ci ay télévision yu mel noonu mais loolu bu mënulee ñàkk mooy tax pay per view di ñëw mais pour combat bi pour moment. buñ ci waxtaanee ak Luc moom li mu décidé moom mooy def le pay-per-view au niveau international. parce que tout simplement comme ni ngeen di gisee nii période coupe d'Afrique bi actuellement télévision sénégalaise yi nga xam ne dina leen droit d'image yi di wane fii ci Sénégal télévision sénégalaise yooyu amuñu droit yi pour wane dans la diaspora donc dañ koy crypté dans la diaspora parce que droit d'image par territoire lay fonctionner. donc ñoom jënd nañu pour le Sénégal mais en dehors du Sénégal ñu ngi ci ay démarches pour am d'autres sponsors wala am na sponsors yoo xam bu ñu contacter. pour hmm. bëgg tey jii ku ci mel ni ñu nekk France ñu bëgg a ñooñu ñu am combat bi yaakaar naa ni tey dinañ xayma pay-per-view bi lu mu waroon génnee foofu sponsor bi bu ko fayee yaakaar naa ni dinañ am combat bi gratuitement au niveau de la France mais pour le moment c'est du pay-per-view pay-per-view bi nag. tey yaakaar naa ni bi yoon pour encourager les gens à acheter trop de prévente boo xamante ni dinañ ko def def dès la semaine prochaine dinañ commencer la vente pour le combat Modou Lo Ama te du doon loo xamante ni dañuy bàyyi ba ci bés bi rek ñuy gis contenu parce que il faut que nit ñi nga xamante ni jënd nañu prévente bi ñu mun a am accès à du contenu exclusif mooy entraînement Modou Lo foofu ca France entraînement Ama Baldé fii ci Sénégal donc ñuy teel a jënd plateforme bi dinañ am benn valeur ajoutée boo xamante ni dina uteeg ñi nekk ci télévision yi di ko seet en direct même si télévision yi fas yéene ci liggéey liggéey bu exceptionnel mm-hmm. donc liggéey bu exceptionnel boobu ñu ci fas yéene def teewul ñun ci plateforme bi dinañ am ay exclusivité yoo xamante nañ ko proposé am na sax une série bi nga xamante ne incha allahu rabi dina bokk ci biir événement bi série boo xamante ne dina am acteurs bëri yu mag ci réew mi dinañ joué ci série boobu noonu te série boobu dañ koy diffuser en exclusivité sur la plateforme senaffiche.com après nag ñu soog ko diffuser ci euh, télé bi wala ci YouTube bi donc loolu la ñu fas yéene def pour événement bi nga xamante ne moom la ñu jëm muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñuy wax ni gars yi rek nañu nañu nañu jàpp ci affaire yi xam ni pay-per-view bi ñëwul pour yàq làmb dafa ñëw rek pour defar làmb pour làmb dem ci kanam pour tey promoteur bi doon tëgg gap yi nga xamante ni da ko doon am pay per view bi mën a ñëw combler ko loolu rek moom mooy objectif premier pay per view mais bu ñu amee d'autres possibilités qui sont des sponsors qui peuvent aujourd'hui offrir le combat à des Sénégalais on encourage vraiment cette initiative là parce que c'est initiative très très noble parce que ñun même on est très satisfait de savoir que tey am na ñu nekk ci ay zones yoo xamante ni c'est à l'intérieur du pays amuñu connexion internet nar a seetaan dafay concerné waat comme toujours euh, nañu nañu daan def par exemple ñun site web bi ko ne xam ne ni ni ñu amee ay ay ñu ñuy xool ci biir réew mi noonu lañu amee ñu ñuy xool aussi ci diaspora bi. Mm. yan mesure wala ban niveau de partinaire ngeen bëgg a liggéey ak ñun aussi. waaw jërëjëf Buur xam nga loolu dafa fas yéene dafa baax ñu leeral ko man ci yéen laa bokk. man kenn mënu maa génnee ci site internet yi. Mm-hmm. donc li ma yéene li ma leen yéene moom laa yéene sama bopp li ma yéene sama moom laa leen yéene yaakaar naa ni. man je même contre qu'on donne des avertissements à des sites internet des avertissements non fondés je me bats pour cela je me bats te lu ma mun a pré prévention dama koy def par rapport à cela te yaakaar naa ni à un moment gis ngeen ni sax c'est pas pour fustiger mais am na ñu fi def ay pay per yoo xamante ni ils ont donné des avertissements à tort te mosuloo dégg nit ñëw ne la Buzz pour jox nañu avertissement à tort ñu ko yàlla te yàlla buñ ko def mais nag contrat la ñu signé bu ñuy jaay la contenu nag mënuñ ko jaay wax fépp ni que dañ koy jaay wëlbatiku mu am ñu koy joxe gratuitement léegi nag promoteur bi mooy décider ak ñi nga xamante ne moom ñoom la délégué sànq jox na leen benn email email bi su ma juumul mooy Modou Ama 13 mars Modou Ama 13 mars arobase gmail point com wala Ama Modou Modou Ama Modou Ama Modou Ama 13 mars arobase gmail point com promoteur bi am na structure bu mu délégué pour bañ conflit d'intérêt tey Buzz Pro géré wul sax wàllum bi donc promoteur bi dina waxtaan ak presse bi yaakaar naa ne dina leen ko yombalal parce que moom moo leen def promesse boobu pour wax leen ci yan condition lay demee par rapport ak li nga xamante ni moo jëm ci combat mais Buzz Pro jàpp leen ni ndaw la rek buy liggéey tey ci benn événement promoteur bi lu mu ko wax cahier de charge boobu rek lay respecté.